al ibadatu wal xidma di wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar ko te loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xaban eh, yal yàlla nangu ñaan yëpp te yàlla na ko yàlla boole jërë ngeen jëf mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne dafa nàmp ci jigéen joo xam ne du yaayam xam naa ne doomi jigéen jooja dañ koy araam mu ne ndax wu jëm nag ay doomam dañ ko araam waaw saabu nit nampee ab xale nampee ci ak jigéen day mel ne jigéen jooja mooy ndeyam day mel ne it boroom kërub jigéen ja mooy baayam képp koo xam ne jigéen jooja la jur moom ñoom ñoo bokk ndey moom moom ñoom képp koo xam ne góor gaay baayam moom ñoom ñu bokk baay kon doom yi nga xam ne ay wujjam wujju soxna si ko nàmpal am nañ ko te góor ga di seen baay ay doomi baay lañ suñu suñu caatak moo tax lu mat a bàyyi xel la saa bu nit nàmpee ci ak jigéen rek jigéen ja yaayama boroom ñoom ñaar ku ci ku jigéen nga jur boroom kër ba jur du ci saxee tey takkante kenn wallahu taala alam laaj nee na fa nekk dafa dafa julli am ko muy gis daal koo xam ne buy ñëw day indiwaale ak gone muy laaj atteb loolu ci lislaam waaw gone goo xam ne day xàmmee na te du fo buñ ko taxaw taxaw yam loo mu yam kooka mënees na koo yóbbu jàkk rawatina buñ ci jubloo tàmmal ko mu teel a tàmm mu dem jàkk amma bu dee gone goo xam ne nag mën na faa te mën naa boo ko tere du bàyyi wala mu ne fa di yuux kooku moom moo bañ ko yóbbu jàkk moo gën mi laaj nee na joo xam ne da doon julli fàtte taaye ak ay bëti wowum taqale kook suuf ndax dañ ko war a sàbbaal mu del siwaat wala déet waaw nañ ko sàbbaal moom ngir mu xam ne jum na waaye nag bu xasee taqale kook bëti wowum ak ay loxoom du del siwaat day xam ne bàyyi na ab sunna bu noppee mu sujjóotal ko xabla salaam kon sabaar gi li mu jëriñ mooy mu fàtt mu xam ne waroon naa toog te toogul waaye du sabbal ko ngir muy del siwaat ginnaaw loxo yi ak bëti wom yi xas na tàqale ko suuf rek na wéy te bu noppee sujjóot xabla salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ay xaatim yi bind nee na léeg-léeg nañu bind ci alxuraan sax waaye dañ koy juutal ak di ko bind noo xam ni daal bokkut ak niñ ko baaxoo bind luy àtteeb loolu waaw gàllaaj daal liñ ci xam lu dagan mooy alquran bi ñu bind wala ñaan gu ñu xam ñu bind ko bind mi ñu xam mënees na ko takk mënees na ko naan mënees na ko sangoo leneen nag lu ñuy jariñoo ci wàllu googu moom xamuñ ci ab dalil wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu seen borom kër faatoo bu ñuy muuru dañuy wax ne ñooy njëkk a julli danañ julli ba noppi ñu door a noddu ak it ajjuma bu ajjuma ñuy fóot ak yu mel noonu daal waaw yooyu de yépp ay aada la dara du ci diine te it nag julli njëkk waxtu moom dafa daganut daganut ci ab jullit muy julli njëkk waxtu saa boo ko defee julli ko baaxut du tee bu waxtoo tàbbee julli waraat fóot it nag nit ki saa bu tilim lee mën naa fóot li mat bàyyi xel mooy jigéen ju borom këram faatu muy iddawu iddawu gàndaku teñ ñi ñaawlu lañ ko sant mooy bu mu sol ay yére yu muy toilettoo bu mu takk ay takkaay bu mu xeeñoo ay gët waaye terewuñ ko leneen lépp loo xam ne ba fi borom këram nekkee mu nekk ab jullit sañoon na ko ba tey mu ngi wéy di ko sañ lu ca dul yi ñu wax nii kenn du ko ngoro du fanaan àll du takk ay takkaay ba mu raay yooma waaye bu doon kuy liggéey sax mën naa xëy liggéey wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa am miraas mu amoon am ca ñaari góor ak ñaari jigéen yoo xam ne ñoo bokk ndey ñu jox leen nag kër goo xam ne dafa tollook seen wàll ñoom nag ñu juboo ci bàyyi fa kër ga di ko luyee muy laaj nag la jëddoo ca kër ga buñ koy séddoo nuñ koy séddoo waaw niñ koy séddoo de mooy euh, nañ ko bokke bu fekkee kër gi rek mooy seen wàll kon day mel ni kër gi juróom benni xaaj la ñaari góor yi ku ne am ñaar ñaari jigéen ñi ku ne am benn kon lu juddoo ca kër ga buñ koy séddoo ñaari jigéen ñi ku ne dana ci am sudus ñaari góor yi ku ne am ca sulus kon pourcentage boobu la ñuy jël teg ko nga xam ne nu alal ji mën a tool rek danañ xam ne bénéfice bañ bañ bañ moom bokk ko sudus ñaari sudus ya doomi jigéen ñaa ko moom ñeenti sudus yi ci def ñaari góor yi ku ne am ci ñaar kon ñoom ñaar ku ne am sulus ci juróom benn yi muy ñaar ñaari jigéen ñi ku ne am benn muy sudus wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ci jigéen muy bënn bakkanam walaw làmmiñam ngir ab taar waaw lu mel noonu de eh, am na boroom xam-xam yu wax ne bu dee aada ci béréb dagan ngir dañ koo xiyaas ci bënn am nopp bi nga xam daan na am jamono yonent bi sallallahu waaye nag eh, li wér mooy eh, du aada yu xam fii te it ci kon tere ko mooy li gën a jaadu du jaadu ci ab ab jullit muy mbugal boppam ngir ab taar rawatina bu fekkee ne lor mën na caa juddoo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na jullik ajjuma koo xam ne imaam da koo rawe benn rakka bu ñëwee nu muy def waaw ajjuma bu ilimaan rawee nit ki benn rakka bu sëlmalee day jóg àggale beneen rakka bi ko defee jàng ci fatiha ak ku saar béral ku sëlmal muy ajjuma noonu lay def bu fekkoon nag daa ñëw fekk rakkab ñaareel bi fas wa noppi nga xam ne imaam rukkoo na ba siggi ci rakkab ñaareel mu kabbar ànd ak moom bu imaam sëlmalee day jóg julli ñeenti rakka ndax kooko fekkewul lu mat ab rakka ci julli kon amul ajjuma tes daal lay julli wallahu taala alam mbokk mi laaj nee gone góor goo xam ne baalix na wala nag gone la yooyu gu ñaar fukki yooyu xelam nekk ci takk soxna waaye baayam àndu ca moom nag da koo bëgg a def ngir bëgg a fegu laaj ba xam ndax sañ na ko ci lu baayam di ci ànd waaw takk soxna de sartuñ ca bàyyi ànd ci xëy na nag barab dana demee noo xam ne bu ca bàyyi àndut mën naa bañ a mel nañ bëgg waaye du sart moom bu xamee ci boppam ne bu tëkkul soxna mën naa mooy te it xëy na am na lu mu ko mën a yore kooku nag euh, bu ci bàyyi ma anut it day jaadu sax mu def ko ndax takkum soxna dana nekk farata bu fekkee ne moom xam na ne mën na koo yor te ragal na ne bu amul bu tëkkul soxna mën naa mooy yàlla kooku takk dina farata ci moom bu bàyyi bu du ko gàllankoor bu fekkee nag ne xëy na bëgg a takk rek la waaye yooyu yëpp amu ci nag diisoo bàyyam ba ànd ci mooy gën wallahu taala alam mbokk mi laaj ne na mannequin yi nga xam ne moom la jaaykatu yére yi ak wala téer yi dañ koy jëfandikoo di ci gaaral yi ñuy ñëw mu ne nataale ay nit lay doon du àtte bu islaam ci yooyu bu dee boroomu ruude nit koo xam ne nii dañuy indi jëmu jëmat sëkk loolu daganut euh, di ko jëfandikoo daganut di ko jaay wala boog dañuy dagg bopp ba dagg ci cër boo xam ne daal mënta dund ci lu cër booba fekkoon dañ ko defar du am du am euh, bopp daal te it yére yiñ cay gaaral ba doon yére yoo xam ne awrala la koy su feeñal ci biti bu dul lool nag def ko du dagan wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na da doon gént di jaxasoo nee na yéreem taq sobe mu fóot ko fóot nee na waaye mu def ay tâche mu laaj ba xam tuba jooju ndax mënees na koo julliwaale waaw sobe bu fekkee ne sonn nga ci xet ga wala bokk euh, ak melowa mu taa dañ jégal nañ ko tànse fekkee sonn na ci fóot ga dañu jégale nañ ko li ñu dégg daal mooy caf ka moom fii mi ngi saf sobe moom dañ ko war a fóot waaye bu fekkee ne euh, xet gaa fa def te dañ wala euh, melowa te mooy tànse bi mu wax loolu jégale nañ ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day jëfandikoo ab xaj di ànd ak moom fu mu jëm ndax nee na bu la defar ataay jox la ko dana jaadu nga jëfandikoo ko waaw bu la leeree ne dara néew ci lu ay de sañ nga ko jëfandikoo ndax yor gam yor xaj moom loolu mbir ma ñi dul ay jullit lislaam may na nañu jëflante ñoom am na ci ñoo xam ne yi ñu def duy baax waaye bu fekkee ne jëf jëflante ga loola du ca feeñ rek doo ko rafetaral la muy def doo ko ko baaxal moo romb jekki-jekki jox la te li jox di lu dagan sañ nga koo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne bu tëddee day gént di jaxasoo waaye su xëyee day gis ay yéram tooy taq maniyu ndax bésu set bu xëyee daa war sangu waaw bu fekkee ne daal da koy war kon saa bu xëyee war naa sangu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ginnaaw dañoo sib ilimaan saxal saabu bu rek di ñaanal nit ñi ndax bu ko def sañ nañoo bañ a dëkk seeni loxo waaw saxal saa buy julli di ñaanal mbooloo mi de moom dañ koy sib ci masa bu malik ilimaan di ko def waaye buy ñaan it nag nit ñi tàllal seeni loxo nekkut farata nekkut sart ci buy ñaan ku aajowoo wala kum jubu sañ ngaa taalal si alxuraan kum neex sañ ngaa nekk ci leneen am ñoo xam ne bu ilimaan di ñaan ñoo ña ñaan wala ña nga yor si ñaa wala daf yeneen kon du du faw dañoo war a taalal seen loxo wallahu taala alam mbokk mi laaj ne daa gis ci ki nit ñi léegi nit am ñaari doom nee na doom ji dugg école di jàng tubaab moom lépp ay way juróom ñoo koy defal yére bu jëndal dàll nee na bu waree jàngi saak sax ñoo ko jënd waaye gone ga ne ci daara ji nag du ko defal lenn ci yooyu muy laaj loolu ci àttab lislaam waaw taxawu sa doom day sa kem kàttan lislaam moo ko sant jullit bu ne ci njabootam ak fu ñu mën a nekk xëy na nag bu dee jàngkatuwaay bi ñoom am na ci loo xam ne ñay jàngale ci seen fulla lay dellu ñoom gone bu fa indi bu solee yére yu tax ñu dàq ko bu sulut ay daal la dàq ko bu manqué ay jumtuwaay ñu dàq ñoom la def da leen ñor yitteel leen faaw gone gi ñu ñu fexe ba mu nekk ci melokaan bu baax ngir mën a jàng loolu yi nag daara jekk gënoon a yeyoo maanaam ab sëñ daara wërtoon nangu nit indi doomam sànni ko fa defulu ko dara muy tumuraanke gu dégg xëy na mag ñi ko doon def bu njëkk amoon nañ baaxuk ak yéene bëgg a defar nit ki tax ñu gàddu ko booba jamono xëy na tane woon na ci àll bi ñu nekk di liggéey di am luñ mën a dunde waaye eh, bi jamono soppi ko ñi na nga xam ne eh, sëriñ daara moom day mel ne xam-xamam la yor war cee mën a dimbali mbokk jullitam waaye la ca des nag moom waru ko gàddul kenn ndax su ko jéemee gàddul wayjur yi mooy waral gone gi boo du jàngati waaye du dund dund gu baaxin nag ndax mënu ko waaye nangu koo jël noonu kay teggi boo fa warteef yëpp bàyyee la ko tey mënoo ko loolu mooy jur loolu loolu nag ñi ko seq ñëpp am nañ ci wàll wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na gone bu tuuree ndox gaanuwaay gu góor gi ak gu jigéen ñi ndax xam na wuute waaw ci mësa bu mali de gone gu tuur ndox sobe la moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam ne ngi lekk wala lekk lekk tàmbaleegul lekk dugub loolu mooy mësa bu mali wallahu taala alam mbokk mi laaj téere bii di safinatul amaan lil xaa'ifiina lujajan niiraan ndax sëriñ bee ko taalif waaw xasiida la xam ne sëriñ bee ko taalif de te lu ci bari daa mel ne téereb al xunya bu cheikh abdul qadir jilaani la way wallahu taala alam